amal Khalifa ñes waxu yooyu ko yëgëte ci téré yi def waxu yoonu bi alayhi salatu wasalaam la wax na loolu téré bukhari waxe bukhari Buxaari yi newu ca waxi muslim nekku ca waxe papay bukhari yi newu ca waxi papay muslim newu ca way waxu yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam mo ci nekk waxu borom subhanahu wa taala borom xam-xam yi deppone li ci nekk lépp wér na ni dafa joge ci yoonu bi alayhi salatu wasalaam amal Khalifa ñes tax wax ne la ca nekk baat bi ma wax legi ci téré bayam ya mom la wax jëmele ko ci téré yi nga xam ne la ca nekk waxu yonent yàlla Muhammad la borom xam-xam yi ñoo ci dëppoo amir Khalifa Niass taxaw la ci nekk lépp dal di wax lam ci wax may waxaat ne téere yi bàyyam ya moom amir Khalifa Niass moom la ay fen nekk kër baayam ak téere yi sëriñam di Cheikh Tidiane ya yooyu ca la fen nekk ko xam ne lii ma wax ne naqari la bàyyil xel lu mu la métti triple moo ko man wax ji nga xam ne kii di Ahmed Khalifa Niass kii di Ahmed Khalifa Niass wax na ko ci wax na ko ci ñaari téere yooyu dañu dëkk di ko wax ci diine borom bi subhaanahu wa taala te Sénégal yëpp log seen mekk ne pat tiijaan yi noppi ci ba tey kenn déggul benn manifestation murid yi noppi ci te am na ñu ci wooye boromi xam-xam te suñ tuddoon seen i tarixa ñu jóg ma Ahmed Khalifa Niass moom la bàyyam bind mooy ay fen la sëriñam bind ay sëriñam lañ bind loolu mooy ay fen lañ bindee ci kër bàyyam ak kër maamam loolu mooy ay fen waaye li nekk ci Buxaari yi dëgg la li nekk ci Muslim dëgg la ndax waxu yonent yàlla Muhammad la te moo waxoon ne gémmiñ gii di gémmiñ ñam ko moom alayhi salaatu wasalaam ak caaxaan bi ci génn asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi oustaz ba duñ mën a teg wax ji nga xam ne Ahmed Khalifa Niass wax na ko ndax diis bu diis ci ñun suñ bopp même xanaa vidéo bi muy ngi nii li mu wax mooy téere bii waa comme fii nit loo wax loo wax dañ lay wax ne la euh, diw sàngam moo ko wax kon ñu bës suñ xool te teg ko balaa ñu naan dañuy sosal waa ji ndax am na ñoo xam ne du ñu dellu seeti ngóor si la mu wax waaye lañuy wax mooy ñun liñ wax ñu déglu Ahmed Khalifa Niass li mu wax ba pare ñu dellu si allah baax la fi te lu baax ay la ëpp ay fen la Muslim lañ wax la ëpp ay fen te moo di day xadis yooyu ci la ñuy tënk Buxaari wax ji imagine leen tey Ahmed Khalifa Niass bu taxawoon lii wax ko ci Alaaji Ibrahima Niass wala mu wax ko ci Alaaji Malick wala mu wax ko ci Serigne Touba ban réaction la Sénégal di am buñ toogee ñu ne ñoom ñoo bëgg yàlla ñu ne ñoom ñoo bëgg yonent bi ñu ne ñoom ñoo bëgg ñoo bëgg ñoo bëgg wax jii nii nit ki wax ko ëpp na quarante huit heures wala vingt quatre ba léegi si nii kenn déggul benn ci kër ñi ñuy askanalee diine kenn ci ñoom ku def benn déclaration su ko waxoon ci benn katu tarixa dégg nañ ay déclaration yu génn gis nañ wax yu gën a suufe yi fuuf ñuy taxaw di ko matt bañ oustaz yi lan mooy àtteeb nit ku taxaw wax wax ju mel ni ci lislaam جزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يوني بوكي خمدي كان كنا سطور أكس سنت دينار يالو بروم سبحانه وتعالى مبارك اللي قلن في نرى وقت دي جرين يوشي دي مين سلر جو أجف نفل نتوفيق وعدنا أك الآخرة مقاي gën a yaatal mbir jëriñante ñu tamit gën euh, moytu wante ñañuy moytu mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo fas yéene déwee nit ñi ci yoon bu di dugal ci nit ñi ay lënt ñenn di ay franc ak i chiite di ay dajjal ak iblis moo xam ci ay sëriñ la ay ci ñuy woote diine walla ñuy woyoo ay sëtu sëriñ ak mel noonu alaa xaal Ahmad Khalifa Niass lu mu wax nii dama ci am ñetti ñàngat benn bi ci moom la yenn yi la yeneen yi ci sénégalais yi la ci ñu nekk ci tarixa yi la ñàngat bi ma koy ñàngat ci damay ñëw ci sénégalais yi d'abord ci waxu Ahmad Khalifa Niass bi da ngay gis ni sénégalais bi ñaar la sénégalais bu bokk ci tariixa xam li Ahmad Khalifa Niass di wax ak oustaz yi nekk ci télé ak rajo yi xam li Ahmad Khalifa Niass di wax daaje bu ci nekk mais dañ naan patt pattaaral noppi waale ko ndaxte Ahmad Khalifa Niass xëy dafa am alal walla dafa am këru diine ba mu bokk wala xëy na maamam daa am fa mu bokk beneen bi mooy réer gi nga xam ne sénégalais yi réer nañ sori bi nga xam ne sénégalais yi sori nañ seen diine ba Ahmed xalifa Niass bu waxee lu mel nii lu yëngal ñu bari ndax dañoo xamul luy Buxaari ak muslim dañoo xamul luy xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ci gën doy waar nag mooy hypocrisie bi nga xam ne nekk na ci ñenn ñuy wuyoo oustaz nekk ci télé yeeg rajo yi bu ñu xëyee ay nit yu tekkiwul dara ay nit yu ñàkk fayda ay animateur ak animatrice ñoo leen di dal oustaz ya nekk fa di lépp di reetaan ñu leen di foowee di leen kaañoo nga xamante ni bu ñu toogee war a défendre diine non duñ ko def lu toll ni tey lu toll ni tey mun nga ne xaaj ak genn wàll ci diine lislaam la Ahmad Khalifa Niass wax ni ay fen la sénégalais yépp toog di ko seetaan lii mu wax moo gën a garaaw fuuf góor jigéen fuuf sax mooy li wax keroog rek gars yi bëri di ma attaqué man leen sénégalais xeexu politique moo fi nekk rek ak xeexu shaabiya shaabiya mooy xeex boo xam ne yow boo ko xeexee da ngay am mbooloo xam nañ Sénégal léegi nga xeex góor jigéen da am mbooloo parce que góor jigéen Sénégal ñëpp ko xam ñëpp a ko sib ñu ëpp dañ ko sib mm-hmm. mbooloo bi da lay wuyu loolu sax nga cee wax waaye bu nekkee nag xeex boo xamante ni yow soo ko waxee amul mbooloo yow xeex boobu doo ko songu xeex boobu doo ko porté parce que la moo tax xeex bi doo am mbooloo tey boo ne woon kaa leen ñu xeex bay faal bay faalisme ñàkk a julli ñàkk a woor ah hmm. sénégalais yu bari duñ la wuy si boo ne woon kaa leen ñu xeex tarixa bii nga xam dafay nekk di woote woo ni ginnaaw yonente bi am nañ ab yonente sénégalais yu bari duñ la wuy si amaana ay saaga nga ciy dégg moo tax xeex yooyu duñ ko musa comme que ñoom ay politiciens lañ ay tekkatu dil la ñenn ñi dañuy xool xeex boo xamante ni ñoom buñ ko laalee rek aha sénégal yépp dañ naan góor nga jóg waaw léegi nag li nga xam ne moom mooy yàq pas-pas yi nag yàq diine yi li nga xam ne mooy màbb xaaju genn walu diine comme lu ahmad khalifa ñas wax ni non loolu loolu ñoom duñ ci wax mooy hypocrisie bi nga xam ne nekk na ci sénégalais yi ñenn ñi ci tarixa yi ñenn ñi ci usaas yi oustaz yi nga xam ne saa yu xëyee dañu sonal sangu set japp julli saraxé te pourtant yoy ñuy wax hadith yoy fan lañ koy fekk ci bukhari ak muslim lolu ñuy sonalé nit ñi diko wax bés bu nekk hadith yoy mu ci bukhari ak muslim lolu ñuy wax sénégalais yi bu nekk lolu ahmad khalifa nas mab ne lu ci ëpp ay fen la te pourtant oustaz yoy ñi ngi toog ne pat pataral. bu ñu jógee nag ku nekk di gërëyee gërëyeelu nag góor jigéen du fi amee baat duñ ko nangu hee hee doo ko nangu waaye bu fekkente ni ku mel ni taxaw na mab xaaju diine ak genn waalam nee na dara wóoru ci nee na tiisubaar bii ñuy julli ñeenti rakk nee na nee na wóorul ay fen la nee na takkusaan bi nga xam ne ñeenti rakk lañ koy julli nee na wóorul na tawaaf kaaba bu ñuy tawaaf kaaba juróom-ñaar nee na wóorul na ñaari rakk tabaski nee na warul azakay murum koor nee na la warul jàpp charte njàpp faratay njàpp amar xalifa des nee na la ndax yii yëpp ngay xool nekkul ci alquran fan la nekk ci buxaari ak muslim la nekk ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam islam la ahmad khalifa ñas mab ñay xexal jikko ñay xexal diine ne patt pattaaral déggoo leen dañuy xat ñenn ñi di gërë gërë gërë profito naa dañuy taal drapeau seen dil yooyu ñuy def ñu foog ne ñun comprendre nuñ ko. Sénégal il faut ñu yeewu buñ leen jaaree ci tur diine pour di jouer seen kaw di politique seeni kaw bañ leen loolu diine boo koy xeex daa am fu mu tàmbalee. munoo bàyyi baasu diine boobu ñëw fi nga xam ni jàpp nga ni yow soo ko defee maanaam ñëpp dañ la naan gonga yow da xool xeex yoo xam ne boo ko defee rek dañ lay tàccu nga sóobu ci loolu. yow ñame woo wax diine luy yàq diine lépp ñame ko wax ñenn kese ñoo ñame wax ci lépp wax ci bokkaale wax ci ñii di tuutil yàlla tuutil yonente bi wax ci ñii di bañ a julli bañ a wax si góor jigéen wax ci fecc kat boole lépp di wax ñen dong ñoko ko muy ahlus sunna wal jamaa mais ñeneen ñep fenn lañu ñame wax feneen fi duñ fi wax seen sëriñ yi tay ngeen yaakaar ngeen foo ni bu ñu nit ñi diine nit ñi xam diine nga foo ni góor dinañ nekk ci dëkk boobu naan dañuy xeex góor jigéen seen sëriñ yi tey ñay def promotion góor jigéen ngeen taxaw fii yéen waa ànd sàmm jikko yi yàggul dara mu génne fi drapeau ngeen koy xeex waa jooju noonu moo dem ci xalif général bi xalif général accepté adiyam ñaanal ko raay bopp bi mu dem. mu jox ko oto léegi ñame ngeen xeex kooku noonu. jël ko kooku noonu yor drapeau góor jigéen ñame ngeen ko attaqué. mais sëriñ ba ko accueillir teg ko ci kaw. sëriñ ba ko accueillir teg ko ci kaw di raay bopp ba ñaanal ko ne ko demal continuer li ngay def kooku yéen a koy raay raayal naan kooku sax signé na. ñii di dugg fii ci live bi di saaga critique kenn ci ñoom mënul gis sëriñ boobu Wally Seck gisoon jox ko oto muy sëñ Mountakha. waaw kenn ci ñoom moo amul daraja yegg ci sëñ Mountakha gis ko. rawat na na nga koo gis jël sa addiye sa tuut jox ko. xam ne ni li nga waroon nga xam ne daa waroon a yemale boroom dërëm bi ak boroom mhm. milliard bi. mu doon yemale président de bi ak militaire ba. waaye malheureusement. malheureusement président bind ci bopp bi ne ko eh, eh, Serigne Touba yi yeewu leen bu leen gars jaar di leen naxe ci ay yoo xam ne mbiru ay mbiru sentimental la pour ay. intérêt. nga bàyyi kër yëpp diggante Soxna la diggante waajur ak doom. gis ngeen bu ñu bi mu ñëwee ñi mu nuyu moo fiis la wax donc contentement la diggante yaay ak doom waaw waaye ñu ngi gërëm ñu fi fekk yëpp njabootam yëpp jàppale la xeex leen góor jigéen nañ ko xeex bu baax dañu àndu xeex bu buñ fi am baat buñ fi taxawaalu waaye nag deux pas deux mesures yi ngeen di def am na si yoo xamante ni ay naxaate la yu gën a garaaw bu ñu fi Kara fii la taxaw de sëriñam moo sàkk asamaan suuf Kara fii la taxaw jàpp ay doomu aadama ay doomu jàmbur emprisonné leen xal leen yéen ngeen ne yéenay sàmm jikko yi kenn déggu leen. dañ ko doon défendre loolu waaw diw dañ ko doon défendre. diw diw day attaqué ñu naan day sàmm ña xaw mu ngi noonu taxaw naa diw day attaqué diw day attaqué ñuy jigéen diw day kii di wax ji dafa leer de xam ngeen lu wax bu baax dañ ne lu bon ci dëkk bi di góor jigéen kese lu bon ci dëkk bi lu gën a garaaw loolu mooy ñii di tuutil yàlla ak yonentaam te yéen a teg seen bës bës bës nekk da a taxaw yàggul rek Ahmed Khalifa Niass génn ci suba ne leen seen diine bi yëpp ay fen la mooy xadis yi ngeen di jaamoo yàlla Buxaari ak Muslim mun leen lépp ay fen la yéen nee ngeen yéenay sàmm jikko ji ak diine ji kenn déggu leen lii nag moom mooy xeexu naafiq nañ ko wax te dee léegi ma ñëw ci Ahmad Khalifa Niass ginnaaw bi nga xamante ni mbir mi feeñ na ci hypocrisie sénégalais yi ak hypocrisie yenn taalibe yi ak ñàkk jàng sénégalais ndax sénégalais yu bëri bu ñu xamoon ni seen xaaju diin ak genn wàll ci téere yooyu Ahmad xalifa Niass ne ay fer la la nekk yaakaar naa dinañ am beneen réaction bu ñu def mais lii day wane ni sénégalais yi comme des nañ leen jàngal seen diine te lu ëpp ci sénégalais dañoo tënku ci ay kër comme kër yooyu des nañ leen xamal lan mooy diine ak lan mooy xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Ahmed Khalifa Niass benn mécréant la boo xamante ni bu la neexee neel franc-maçon la bu neexee neel chiite la bu neexee neel mulxit la bu la neexee neel orient euh, kii la mooy lu mu tuddati euh, mustashrik mooy ñi nga xamante ni xalaatu tubaab yi la yor xalaatu orientaliste orientaliste benn ab tiijaan la ab tiijaan la ab si ay ñi lay tudd nii kiif kiif doo xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw doo loolu yëpp naa ko faram-fàcce léegi nag yii yëpp nga xamante ne mu ngi ci Ahmed Khalifa Niass am na fenn foo xam ni moom foofu lay askano ñu daal di koy reconnaître nee na moom ab ñaseen la boo xamante ni dafa bokk ci ab tarixa ñooñu nangul baayam nangul ko moom mu jël nono baayam Ahmed Khalifa Niass sañ naa taxaw wax ni tarixa ba mu soso nga xamante ne ñun am na luñ ci xam ci téere yooyu ka jiita tarixa bi yoo xamante ne ay neen la mu leer wuuteeg la mu wax ci buxaari ak muslim buxaari ak muslim mun nga ko wër ba jeex doo ci gis ay neen te téere maamam de wala waxuma maamam waaye tarixa ba mu askaloo téere kooku soo fa demee fekk fa ay neen ay lu dul dëgg ndax kooku bind na ko gis dem aljanna muy ay neen yu leer nañ Amar Khalifa sañu ko duut baaraam sañu cee wax dara waaye nag sañ na nag jël loo xamante ni xaaju diine julli ñi seen xaaju diine genn wàll fa la nekk mu ne lool ay fen la am Amar Khalifa Niass yow yaay fen lu fi sa baay baay mooy ay fen li fi sëriñam bàyyi it ay fen la loolu moom ay fen waaye Bukhari ak muslim umma bi xeet bi ñoo nangu ni ginnaaw alquranul karim ñaari téere yooyu ñoo gën a wër naka la wëre moom mooy ñaari téere yooyu la ñuy jaamoo yàlla xaaj beeg genn wàll boobu ci ñaari téere la nekk juróomi ponk lislaam yi muy julli juróom euh, fajar ñaari rakk suba tisbaar ñeenti rakk takkusaan ñeenti rakk timis ñetti rakk gee ñeenti rakk loolu demal ci alquran doo ko fa gis loolu fan lañ ko jëlee ñun jullit adduna bi ñun ñu koy def Sénégal jàkka yu fa nekk julli boobu ñuy julli waxtu yi di ko jullee ci rakka yi fan lañ ko gisee ba koy appliqué loolu ci Buxaari ak Muslim la aji màkk bii ñuy aji màkk chaque at tawaaf kaaba juróom-ñaar julli maqaam Ibrahim ñaari rakk daw safa ak marwa tawaaf juróom-ñaar Ahmad Khalifa Niass jaamu yàlla boobu jullit ñëpp ànd di def say maam doon ko def ba say baay doon ko def ba yow nee nga aji nga def nga ko loolu fan nga koy fekk fudul dul ci Buxaari ak Muslim est-ce que di ko fekk ci alquran déedéet comme Ahmad Khalifa Niass yéen sénégalais yi yéen jullit Sénégal yépp la boole ne li ngeen di jaamoo yàlla ay fen la ngeen toog ne patt pattaar mel ni dara xewul mel ni dara yënguwul Ahmed Khalifa Niass nee na la yàlla waxoon ni la yoon dem salaa sala waxoon ni sallu kamaa ra'aytumuuni usalli julli leen comme ni ngeen gisee may julli la yàlla wax yonente bi ne ko la yàlla wax ci julli ñi ne in tutii'uuhu tahtadu boo leen toppee yonente bi di ngeen jub ne topp leen yonente bi maanaam sunna yonente bi nam daan jullee nam daan wooree nam daan aje topp leen ko la yàlla wax Ahmed Khalifa ñas nee na loolu du dëgg ndax yonente bi lam ñu wax yàlla lam ñu wax topp leen yonente bi te topp yonente bi nekkul lu dul la mu jëf saxaaba yi nettali ko ñoom Buxaari ak muslim bind ko ci ay téere mu nekk ab chaîne mu nettali ko ba ci yonente bi Ahmed Khalifa Niass nee na leen loolu yëpp du dëgg ama xas nee leen topp yonente bi du dëgg ndax la Buxaari ak muslim bind du lenn lu dul waxu yonente bi ak jëfu yonente bi la nekk nee leen loolu yëpp du dëgg nee leen topp yonente bi du dëgg lii la Ahmed Khalifa Niass wax yéen waa Sénégal ngeen toog ne patt pataaral Ahmad Khalifa Niass nee na la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyu yuuxa wax ci bànneexu bakkanam la mu wax yàlla moo ko wax loo nee bi la mu wax la mu wax maa ko wax loo ah. bi wax moom moo nekk ci Bukhari ak Muslim Ahmad Khalifa Niass nee na leen loolu yàlla wax ni la yonente bi wax jël leen ndax du ay waxu boppam maa ko wax loo Ahmad Khalifa Niass nee leen loolu du dëgg dégg ngeen wax ci te dëkk boobu nga xamante ne Ahmad Khalifa Niass fa lay waxee ni loolu dëkk dëkk boobu la am ko bind xaatimatu munaajaat yi saxal fa yu kenn xamul saxal fa ay mbóosóor wax ni yàlla xaaj na nguuram jox ko wax wax wax wax wax Ahmad Khalifa Niass loolu mus cee wax Ahmad Khalifa Niass dëkk boobu muy waxee loolu ca tarixa ba muy cosaanoo ka nekk ci bopp tarixa bi am na lu ëpp juróomi jabar am na xam musul taxaw ne loolu ay fan la ka sos tarixa boobu taxaw ne ne jaam bi yàlla la yàlla jaam la waaw dëggal pas-pasu waxdatul wujud amar xalifa ñas sañul taxaw ne loolu ay fen la ka sos tarixa boobu taxaw ne ne moom boo ko xooloo rek dugg aljanna muy ay kàcc yu leer Ahmed Khalifa Niass sañul taxaw de loolu ay fen la waaye Ahmed Khalifa sañ na taxaw ci télé Sénégal bu ñëpp di seetaan muy seen TV ñu invité ko mu ne leen yéen jullit ñi la ngeen di jaamoo yàlla xaaj bee genn waa ay fen la tax mu sañ a wax lii ci dëkk bu mel nii parce que hmm. jullit ña fa nekk benn amuñu fulla amuñu fayda fiiruñu ngir seen diine jullit ñi tarixa ya ñu bokk seen yoon nekkul ci diine loolu la nag dañoo gëmul diine ji tarixa yi lañ gëm parce que tarixa yi lañ leen jàngal nag boo bëggee dégg yi lañ jàngal ñi moom leen bëgg comme lii ñu bëgg borom tarixa yi bëgg tarixa yi seen yoon ci diine day gën a firndeel mhm. lii day gën a ni te seen tarixa yi wallahi nekk luñ fi diine ak soreeg seeni bopp lañ fi nekkal ak seeni diiney bopp lañ fi nekkal waaye bu fekkoon diine am na xalif des lii mu wax su ko waxoon Makka kenn waxatu ko su ko waxoon Koweït kenn waxatu ko su ko waxoon Maroc gi wala muritani gi muritani gi kenn waxatu ko ñëpp nee nañ pat waaye Sénégal mooy dëkk boo xam ne dajjaal bu ñëw mun na fi am tool bay ko fa ndax dëkku dajjaal la ndax tamit. loolu la TFM nii ñoo du TFM de. ah euh, la seen TV la seen TV la ko waxee du TFM. xamatuma ban télé la. non non dafa am kenn ku bind TFM la mais du TFM sax seen TV la. ok loolu lañ fi fekk. li nga wax moom dëkk boo xam ne nag ku nekk sañ ngaa wax lu la neex ci yàlla bu fekkee dëkk boo xam ne. amna ko fa taxaw ne serignam mo sak asamaan suuf kenn sëkkatul kenn yengatul wa wéel wéel wéel wéel sen TV la mu ngi ni dekk bo xamne sen TV bu fekke dekk bo dama bëgg wax la motax amal amal Khalifa ñass ñame wax li biir senegal lutax bu fekke dekk bo xamanteni nit nit ah sañ na am wéri jabar ak ñett ba pare ñu koy layal ñu def lolu wilaya ñu def lolu karama ñu def lolu barke ñu def lolu ag ci yalla dekk bo xamni nit sañ taxaw am 75 jabar moy famu bok mom ahmad khalifa ñass bañu naan borom 75 lolu lañ koy dakantale 75 75 dom 75 jabar merci merci loolu lañ koy dàqantale ba pare loolu mu nekk ab bàkk ci fo quinze ans am juróom ñaar fukki dëkk boo xam ni dëkk boo xam juróom ci juróom ñaar sañ na fa nit sañ na fa taxaw ne am na yonente boo xam ne yonente ba ñuuloon ba xeesal màkk moo ñuul bi bu fekkee loolu mën na fa dox bu fekkee dëkk boobu lii mu tudd mën na fa dox comme la ahmad Khalifa Niass wax sa normal bu ñëwee moom it mu jàll ndax warithahu kaabir an kaabir da koo doon rek ci ay magam yam fu fekkoon moom it mu ñëw samp comme Sénégal xam nga la laa indi yégal hmm. yàlla moo leen nattu boo ay njiit yoo xam ne dañ leen di duma ndax fonto bi ngeen di fonto yàlla ak xeex leen fii ba gannaaw suba yuuxu leen coow leen marche leen prier leen mbëkk leen miir yi yàlla moo leen natt gis nga ku fi jógee tamit yàlla ne keneen koo xam ne da leen di gën a duma jëlee leen fi kii toog ñaata at yéen a ngi yaakaar Senghor ngeen commencé yaakaar ngeen ne noo Abdou Diouf bu ñëwee dina baax Abdou Diouf gën leen a duma ngeen ne noo Abdou Diouf bu ñëwee yaakaar kooku gën leen a duma keneen ku ñëw ngeen ne kii dina baax kooku gën leen a duma duma yi du seen mbonde yalla mo len di boole ñom ndax ni ngeen mel yeen ndax fonto bi ngeen koy fonto mu len di duma te do leen ci mën dara nak parce que bu fekke Ahmed Khalifa Niass mën na wax li yew nek ci jàmmam parce que dafa bok ci tariixa parce que ab ñaseen la motax dara duko dal dara du ko comme xaar leen yàlla moom ñëw wàccal bopp ay bugalam te yalla da len di dóor loxom duko laal loxom du len laal lii moo téye seen dëkk bi Buxaari ak Muslim ñaari téere la yoo xamante ni yéen sénégalais yéen sénégalais ni ngeen di jàppee ni ngeen di sangoo set ni ngeen di jullee tisbaar ni ngeen di jullee tàkkusaan bo bo sëggee loo war a wax boo jàppee say oom loo war a wax boo sujootee loo war a wax boo siggee loo war a wax booy taaya loo war a wax booy sangu set noo war a sangoo set booy joxe azaka noo ko war a génne booy aji màkk noo ko war a defee seen jaamu yàlla yi yëpp yéen sénégalais xam nga fan la nekk xam nga fan lañ ko jëlee ci buxaari ak muslim muy ñaari téere yi nga xam ni moom la Ahmed Khalifa Niass wax ni la ci ëpp ay fen la legi ngeen tok yeen sénégalais yi ci loolu ngeen ne pat pataral ku wax sax wala bëgg a tontu ci loolu sax ngeen ne ko non euh, na rafet na maanu na na nangam na nooy na vous êtes des hypocrites hypocrite ngeen de xam nga ngeen nek hypocrite nak c'est normal parce que dëkk bu bari tariixa ku nek am say mbosor ñen ñu neen am ci mbar fegu bop voilà léegi sa mboosoo yooyu da lay doy li nga moo gën li ñeneen sa mboosoo yooyu da lay doy ba dootoo wax ni ba dootoo wax ni su mboosooru jàmbur. bokk ci boppam la ko la ko la ko lal ay sos la. la lal mooy benn waay rek moom moo ne yonente bi moo jóge ci bàmmeelam ñoo jox ma. sos yu leer yooyu nga xamante ni borom xam-xam bi dëppoo wuñ ci. benn waay rek moo ko wax. sos yu leer yooyu Ahmed Khalifa Niass tuddoo ko de. té mu nek sos bu leer a leer a sos bu ci gëna graw nak moy wax di far sax mo gën alquran waaw ah, wax ni wax ni la ko yonenté bi jox benn wirdu bi rek mo gën nga nga oh, day tollo nga jang alquran 6000 fois manam mo gën alquran benn junne yoon manam mo gën alquran moom la Cheikh Tidiane wax ni benn salaatu fatima pourtant lolu non pourtant lolu non ay katch la dé ñu leer nañ ñi yo xamné dañ koy dañ koy wax ñepp xamni am nañ dëgg ci lu ñuy wax parce que ay katch la waaye nag nga fekk loo xamante ni borom xam-xam ñoo ci dëppoo muy ay chaîne yoo xam dañ ko nettali ba ci yonente bi borom xam-xam yëpp dëppoo ko lu ëpp ci ay junni borom xam-xam ne lii moom jullit ñëpp dëppoo ni lu wër la ibnu salah mu tëxal dëppoo borom xam-xam yi ne ñaari téere yi ginnaaw alquran ñoo gën a wër albaqilaani toxal dëppoo boobu assuyuti toxal bopp dëppoo boobu ashawkaani toxal dëppoo boobu al imam as-sijzi toxal dëppoo boobu ibnu taymiya ibnul qayyim ñii ñëpp toxal dëppoo bi na ñaari téere yi jullit ñëpp ñoo dëppoo ni ginnaaw alquran ñoom ñooy lu gën a wër ndax ñaari téere yi fa la ñuy fekk lañu ñu yonent bi salaa sallam digal ak la mu wax léegi nag jàpp leen seen mbooleemi koor ak ni ngeen di jaamoo yàlla ak ni ngeen di wooree ak ni ngeen di ajee ak ni ngeen tawafé kaaba ak ni ngeen di saraxé ak ni ngeen di génnee azaka murum koor ak ni ngeen di jullee ñaari raka korité ak tabaski Amar Khalifa ñass néna yeen sénégalais yi loolu yëpp dara waru ci du dëgg yi bëgg sénégalais yi xam lu Ahmad Khalifa ñass wax amma Ahmad Khalifa ñass nak ab iblis la bo xamni bu fekkee comprendre doa leen ko ba do to leen ko mëna comprendre nga nek bokku ci tarixa nak nek franc-maçon du dara parce que sorantewul nag yenn ta yenn tarixa yi bokk soo hmm. amee gëm-gëm boo xóotee ci tarixa xóot soo demee ba gëm ni yow am na fooy àgg mun nga bàyyi jaamu yàlla hmm. yow yaag franc-maçon bi sorantewul pour nga nekk franc-maçon day yomb ah, parce que da ngeen am lu leen jokkale yéen ñaar lu leen jokkale mooy lan mooy jaamu seetaane soo demee ba gëm ni yow lépp loo gis yàlla la xaj bi yalla la mbam xuux bi yalla la yow pour nga dem adhérer bokk ci franc-maçonnerie lolou dara parce que da ngeen am lu leen rap yeen ñaar da ngeen am lu leen bolé lu leen rap hmm. moy lan jaamu shaytan parce que bu fekke ki nga xamne mom kurel ba mu bok mom Ahmed Khalifa Niass kàngam bañ kan foor bi ba wax ci kurel ba mom nee mom lepp lo gis yalla la moo ko muy Ahmed Tidiane moo ko bind ci jawaahir Ahmed Tidiane wax na ko moom ci Ahmed Tidiane warul jawaahir nee na boo sujjootalee xërëm yàlla nga sujjootal wax na loolu ci ku ñu weddi demal nga xool jawaahir yàlla la sujjootal da xërëm bi yàlla la moo ko wax ba ca Saalum wax ci ay téeram Alaa Ibrahima Niass nee na ka ko gis gis na yàlla moo ko wax nekk ku ko gis gis na yàlla moom mooy yàlla ne lépp loo gis yàlla la day fen léegi kooku lan moo ko wuteeg franc-maçon kooku nee na iblis yàlla la lépp loo gis yàlla la nee na yàlla la firawna yàlla la abu jahl yàlla la abu lahab yàlla la haamaan yàlla la téeréem yooyu di Ahmed Khalifa Niass gis na ko xam ne loolu du dëgg taw taxawut ci télévision teewut ci benn télévision pourtant téere yooyu moom moo gën a bon ci télévision wax ko ñu censuré ko wallaay bu toogoon ci télévision wax loolu mais lii du dëgg ñu censuré ko léegi lu fi nekk mooy télé yi bu diina la ñuy wër moo tax amee xalifa lu wax ñu bàyyi fi mu nekk mooy yéen sénégalais ñu ëpp sénégalais yi bokk wala ta ñu nekk tarixa yi tarixa yi ñoo leen gënal diine lislaam loolu mooy dëgg loolu lay dëgg nag diine lislaam ñoru leen amee xalifa nag day kàcc day fen wax ju rafet nu ko jaaree wax ko fii day fen day kàcc fa bokk lépp ay fen la ay kàcc la waaw lii mooy lu wër julli yeewu leen ngeen fiir seen diine yeewu leen Sénégal la ñuy wax yenn waxi nit ki di wax yenn wax xëy fa di dox soxlaam amul benn problème li su ko waxoon Arabie Saoudite ko defati Mauritanie bii ñu gën a jege na def wax fa mu xool demal na dem Mauritanie rek wax ko fii Mauritanie na kenn dem rek Sénégal dem wax sa sa waxu dof yi nga xool waaye nag Sénégal mu ngi noonu garab boo fa sax loo sax rek suuf si moo nangu loofa sax. mu ji loo fi ji mu sax ku jug fontoo yàlla fontoo yonentam mais nag ah comme que affaire de tarixa la ku nekk dañuy jaayante wax lu rëy ku dàq wax lu rëy rek dàq wax lu bon yaa aat. da leen fekk ci ci logique boobu rek voilà mais Ahmed Khalifa Niass fa nga bokk mu ëpp ay fen mu ëpp ay kàcc. ñoom kàcc yoo xam ne amul laam-laame kenn du ko laam-laame kàcc yu laam-laame la. lan na sa sëriñ moom ku ko gis-gis na yàlla te mu ngi ci suuf yàlla du am doom yàlla du am yaay du am pap moom daa am yaay am pap ñom ñi ci tariqa yi tariqa yëpp koy manki àqu yàlla bi subhanahu wa taala man lan mo tax ba ñi ci tariqa yi lan mo tax do dégg ahlu sunna wal jamaa dérapé ci àqu yàlla do leen dégg ñu dérapé ci àqu yonent bi ali sallatu wasallam ñu yene leen gëna bañ gën leen di contre mo tax fan yi ni bi bo leen le man buma déggé ñuy ngawte ngawte dama leen nan tok leen ngeen noppalu ahlu sunna wal jamaa ku ci wax lu wuté alcorane sunna ñun ñoo koy dajji parce que ñun ñoo ñoo xam ñun yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ak borom bi subhanahu wa taala muy alcorane hadith la ñuy mhm. sukkandiku ku wuteeg loolu dañ lay radd bu boobaa ñun ñoo ko mën a radd mais yéen ñi gëm mhm. beneen tarex wala yow mi gëm beneen sëriñ yow mënoo radd sax el seex mënoo mhm. radd sang njaay mënu leen di radd kenn ci ñii parce que tarewu leen leen ndax yéen ak ñoom a yem tarex yi ay fen moo ko samp ay fen moo ko suuxat ay fen moo ko fi indi ay fen moo ko fi téye ay fen ku jëlee dëkk ne newoon ay fen lañ ko fa sampee woon bañ nit ñi dëkkoo ko faa jëlee sax ko sànni ci àll ba waaw Ahmed Tidiane soppem xaalis ci la commencé Algérie bañ dàq ko fa jëlee ko fa mu dem Maroc Mm-hmm. samp fa liom ànd ak colonialiste yi ñu gemb ko lépp ci ay naraki feneen ki kàcc mm-hmm. ngeen gëm mu ñëw mm-hmm. fii nii tarixa yëpp ay wéele àqu yàlla subhanahu wa taala ñu wéele àqu yonent bi alayhi salaatu toog na ci pat tarixa murit li ñuy wax yàlla li ñuy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ñuy wax ci alquran Gana Messere sañ a toog fii jëxran ne moom alquran bu ko Serigne Touba bindu doon te bu ci waxu doon ni konoon moom du ko jàng ndax gëmu ko aay dafa wutee riwaay dafa wutee sëñ mën la wax fii كنن كنن نونو اق يالا اق يونتم لا سنغالي ديسي خام تا طريقه يي موكو وارال ني جيدي طريقه يي جي سن بوب نيوي بروبليم بي طريقه يي ني في سامب ني موي بروبليم بي ريو يي ويتال ريو يي امول طريقه دنج با ويتال يالا جل وعلا دو فك موك ريو مو خامني ني تاسو فو امو فا طريقه يي امو فا دا فك فا بوكال غو ام سنغال امو فا امو فا دوكو لي توباب يي صاح Amel Khalifa Niass li mu wax man tuba bi sax duñ ko wax nasaran ci la la yéeféeri la la bëgg wax yéeféeri sax xam nañ ni moom julli moom li ñu gëm mooy Buxaari yow muslim ñooy téere yi gën a wér te mooy dëkk mooy seen dëkk moom lañ gëm même yow julli ku gëmul lislaam dafa gëmul lislaam mais ki gëm ji lislaam kooku dafa gëm ne nii lislaam lii mooy lislaam téere yooyu dañoo bokk ci lislaam ñaari téere yooyu ku leen weddi lislaam nga weddi ku leen gëm kuy gëm lislaam da nga leen di gëmaale ndax la ca nekk mooy waxu ki yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam ñooñu waxuñu dara ci seen bànneexu bakkan dañoo jël ay junney junney hadis Buxaari yi six cent mille hadis la jël juróom benn téeméeri junney hadis moom la imaamu Buxaari yi jël segg ko génnee ci sept mille et quelque muslim def lu na mel liggéey yoo xam ne ni sa benn hadis mu tukki ci voyage yoo xam ne kenn xam fu mu toll lépp ngir gëstu ndax hadis bii dëgg la am dëgg Ahmed Tidiane Jawaahirul Maani am mbalit ay kàcc képp la dem jël rokkos ko jabam fees tel mu ñëw tegal ko yi comme ci ci lalam la tëdd rek ci am lalam la ci am lalam la tëdd na yonente bee ma feeñ. mu ko xali na bi dem kàcc eh, ko fen ko sàcc ko yenu ko indi mu ñëw ne ko lii nii téere la buñ sàcc du ma ko jël xëy na ah léegi baax na amul problème léegi gént naa yonent bi kat nee na moo moo ko taa moo ko taalif lii tijaan yi gëm ko topp ko ci ñëpp xam ne lii dëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam danaan wax di wax ben sahabi abdullah ibn amr ne ko bindal lépp lu may wax ne ko dara du génn ci man lu dul dëgg uktub lu dul dëgg wallazi nafsi bi yadi ma yakhruju minni illa alhaq bo len waxe ñu ne la ci nek moy salatu ala nabi istighfar la ilaha illa lool ci alquran la nek du deug non non non lool mu ngi ci alquran fofu kay la fa nek la fa nek la fa nek kay moy geuna ne geuna ne salatu fatih ci alquran lool fa nekk téere yi yi ñu bind ci askar askar fikr yi nit ki wara def suba ngon ak beccëk ak fu nit mëna aw ay téere la ci borom xam-xam yi bind booba Cheikh Tidiane juddoogut mhm. mais dafa ñëw nëbb ko indi boppam wone mhm. bañ na ko bi muy wax booy wir sax daf ne moom na nga ko mhm. teewlu moom moom mooy kan bañ na ba as boppam moo tax ñi ci toppit seen bopp yi warees na koo seetaat tarixa boo xam ne borom moom ñëwee daf ne aw yoonam la moom tarixatu tijaan yi la wax bayee leen ko tijaan ay mbokkam ngeen topp tarixa yàlla bi ndax ndax yéen jaami yàlla ngeen wala boobu fekk ngeen yéen a gëm ne ay jaami tijaan yi ngeen léegi bu baax yéen yéen a xam Mm-hmm. mais ku mm-hmm. gëm jaamu yàlla nga moom nekkal jaamu yàlla na nga topp li yàlla wax topp li mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi. Ahmed Khalifa Niass lii mu wax nii. Uh-huh. dama ne bu ko waxoon ci tariqa tijaan tijaan jóg bu ko waxoon ci mais nag Ousmane mais nag Ousmane xam ne duñ julli duñ euh, euh, dañoo gëm ne benn yonentaam te loolu ku sànq dafa mel ni dafa mel ni yaa ngi doon xaw a mel ni ku xaw a kii ni franc-maçon la nag gis nga bokk nga bokk ci nekk franc-maçon du dara loolu loolu dafa simple loolu lu bëri dafa ko bi loolu dafa bëri loolu bëri na sëriñ yi na sëriñ yoo xam ne ay franc-maçon lañ dëgg la parce que ñoom ci la ñu tënku ak ci la ñuy dox ak franc-maçonnerie benn la day maanaam dafa dafa duggante mais li li lépp jaaw seetaan la lépp jabar sëriñ sëppay takk xaaw lépp jaaw moo tax gàllaaj sëriñ sëppay defari gàllaaj di ko jox nit ñi ñu koy takk moo tax balaa ngay doon moo tax yenn sëriñ si yenn sëriñ si balaa ngay doon franc-maçon faaw faaw faaw nga mën a def yenn naxaatam sëriñ si pour franc-maçon yi mun la soxla dëgg la franc-maçon dañuy soxla ñooñu parce que woo nañu ci seetaan yi franc-maçon dañ ko soxla moo tax sëriñ bu nekk franc-maçon la waru yéeme ci sëriñu Sénégal yi parce que sëriñu sëriñu Sénégal moom du leen lu dul woote sa bopp tuuti li yàlla tuuti li ëpp nag ñoo tax ñuy wax tuuti li yàlla tuuti li bi yëkkati ay nit loolu mooy sëriñu Sénégal loolu la di comme kooku dem féeteeg seytaane yi bokk ñoom signé ak ñoom ay ay ay affaire loolu dara tax Sénégal mën a góorgóorluwu dem jaamu ji yàlla jàpp ne ndax ñii nii yowmal xiyam billahi yowmal xiyam foo seen ñi ci tarixa yi teggil boo boo mënee teggi teggi xamal ne foofu fa lay coow la di nekk lii subhanahu wa taala tëkku ñiy toppeeg ñi ñuy topp Sénégal gii billahi ñi ñuy topp yowmal xiyam coow lu bëri da dafa nekk amul nit ñi benn njëriñ fii ci àdduna ñoom ñii ñëpp duñ liggéey duñ def lekk ay nit ñoo xam ni fexe nañ ba organiser société bi fexe nañ ba programme mbir yi ba ñoom nuñ dundee ñoom ak seen famille loolu moom jaral na leen lu nekk àdduna bi na tàkk réew mi na tas ni ñi ne dee xiif seen yoon nekku ci ki fi nekk nay rey nit ñi seen yoon nekku ci mm-hmm. dara doo dégg ñu wax lenn loo xam ne lii nii day jëriñ askan wi ñoom seen yoon nekku ci askan mm-hmm. ñoom xam naa Oustaz Fadel mu ko doon nettali fan yi semaine bi passé nettali na ko fi sax yeneen yoon ci benn professeur bu doon jàngal benn waay benn téere mu ne mu di ko ci jox euh, fekk moom dafa nekkoon daan déglu da doon ñëw jàng moom keneen ñëw jàng mu ñëw fekk kooku di jàng mu di déglu nee na kooku di wax waa ji ne ko di ko jox benn misaal euh, ci teeñ woo xam ne nii day dundu ci eh, benn rab wala benn nit waaye dafa fe teeñ bi dafa fexe ba gëmal kooku ne ko eh, dund googu muy dund ci moom maanaam mucc googu muy mucc deretu waa ji bu ko bàyyee kooku day dee te fekk ne hmm. waa ji bu fexoon ba teeñ boobu hmm. bañ a mucc deretam ji moom teeñ bi moom mooy dee hmm. mais teeñ bi da koo gëmloo ne ko léegi lii may manq sa deret ji man bu ma ko bàyyee yow a ngay dee léegi kooku gëmlool mooy tarixa yi dañoo gëmloo nit ñi ñoom ne leen ñoom dund gi ñuy dund ci kaw nit ñi mooy tax nit ñi di tedd fen la bu nit ñi fexe woon ba tarixa yooyu du dund seen kaw ñoom ñoom ñu jiiti tarixa yi ñoom ñooy dee ñoom bu waa tarixa yi ñooy dee sirif nelaw yu xóot rek jàng liggéey xamuñ dara amuñ benn technique nelaw yu xóot rek xam nga sénégalais sénégalais maa dégg sama copain euh, Morgan murid yi mbàkk mbàkk yi muy wax lu am solo seen loxo yàlla xam ne ne mbàkk mbàkk yi ñu ci bari ñoom amuñ xarañte fooy liggéey surtout ñi ci kaw Mm-hmm. tey nan moom am na ci ñoom ay jeunes yoo xam ne wax dëgg yàlla jàmbaar la ñoo ngi daan seen doole moo xam leen ñuy góorgóorlu doole jàmbaar dëggantaan wax dëgg yàlla nit ñi mais nag sénégalais sénégalais mooy nelaw di xandoor te buggul ku ko déranger buggul ku ko yee dëgg la waaw loolu mooy problème bi saaga sénégalais da ñëw di ko yee mu saaga la waaye bu ma nangamtaan yee comprendre nga loolu moom mooy problème sénégalais moo nag nelaw yi dañ nelaw yi maanaam il faut ñun nelaw ba chronique balaa ñu yeewu faa ñu nelaw ba chronique ba seen yaram bi feebar ñu dem ci médecin médecin bi ne la yéen nelaw yi moo feebar loolu ñu doog a yeew man de kum ci neex bi laa ngay ne waaye ci naa leen fëgg de xaw ma da ngeen yeewam du ngeen yeew de ay sëriñ yow sëriñ boo xam ne yow sëriñ boo ne boo ko joxul du dund quoi yow yaa koy jox pour mu yaa koy jox yëg ci katkat yaa koy jox yaa koy jox pour mu sol galila yaa koy jox pour mu def nangam nangam yow kooku jëla gëmloo ni yow yow joxe bi ci ngay teddee te yow yaa ko teddal ci àdduna ngay xaar moom mu teddal àllaaxira mais xaaral xanaa bu fekkee moom dafa jàpp ne moom joxe mooy tax a tedd waaw moom xanaa bëgg naa tedd moom du joxe moom xanaa moom pour mu <laughs> <laughs> bu doon liggéey mooy tax a tedd mais sëriñ bi xanaa moom liggéey tax moom mu tedd <laughs> fekkee dem liggéey sëriñ xel koom bu dee mooy tax a tedd ñu ñëw ci borom xanaa ñoom war nañu bëgg a tedd xanaa ñoom kilifa yu mag yi xanaa xel koom pour ñu tedd

gëmloo nit ñi ne ñoom léegi deret nit ñi ñuy dundee. dañoo réew rek ñu dee te fekk ñoom. dañoo eh réew de rek la dañoo réew rek dañoo réew rek. dañoo réew rek dañoo rek mosu bëri réew de rek la waaw. dañoo en docteur nit ñi fexe nañ ba jël maayanu doomu aadama yi dox ci ko maayanu nit ñi ba hmm. boo leen tuddee nit ñi taxaw fee ne di la saaga ñoo xam ne nii seen yaay yi amuñ luñ lekk seen baay yi hmm. amuñ luñ lekk seen i connexion dañ koy fraatu. Hmm. ñooñu ñooy toog fii nii yow di la saaga ñooy toog fii nii di la jéem a indil ay benk ñenket ñooñu amuñ luñ lekk ñoom démb wala barki démb damay wax ak benn waay xawma lu may wax maanaam ma man soon bi ma dëkk sax dama xam naa dama débat bi may def ak yow bëgg naa ci kon ni mais sama mooy bëgg a wàcc te yàlla dogal man zone bi ma nekk amul courant ma ko yow sëñ bi yow am nga loo wax yow ngay dund Touba dëkk ci zone boo xam ne yow amul courant yow loo xuloo yow li may wax bàyyil yow kay bu dëkk bi baaxee yow nga yow nga tedd ji yow maa la tane mm. ma ne ko yow man maa la tane man amoo problème mu chargeur amoo problème mu courant jafe-jafe yi ngay wax nii man dudduma loolu mhm. mais nag fexeel ngeen yeewu mhm. kooku tey ndeysaan téléphone am sam yor saa wax man ñaari baat ne sama téléphone bi mémoire bi moo feesoon moo tax foog moo supprimer après doo ko kiiwaat buy wax man den saa mu wax ojo effacé ko ma ne ko man bu la neexee loo wax effacé li may wax man bu ci effacé dara mhm. man li may wax ak yow duma ci effacé dara foofu laa la koy baal boo la neexee yóbbul sama yoon newu ci ndax samay dëgg ko wax wallaahu mustaan yàlla yàlla sàmm foog ñu dimbale leen oustaz jàppale leen yee leen borom xam-xam yi tamit nag. nañ génn noppi duñu noppi lu mu leen jaral waruñu noppi. terrain bi hmm. buñ ko bàyyee wéy neen yii Ahmed Khalifa Niass Gana Messere Abdoulaye ma ne Ousmane. conseil kii dañuy réeral dañoo toll jamono boo xam ne nañu wàññi yenn thèmes yi. Sénégal dafa am yoo xam ne dafay bariwul njëriñ ci jamono ji ñu toll mbokk yi. seen wax nay bëri ci tawxiid nay bëri ci bokkaale loolu mooy suñu problème lu mënta ñàkk nag nañ ko jàngal nit ñi nit ñi nañuy jaamoo yàlla ni ñuy jullee ni ñuy wooree nañ ko jàngal nit ñi wallaahi jàngale xadis mais dama ne hmm. waxu daa yi jamono ji si Sénégal soixante di pour cent quatre vingt pour cent daa war a nekk ci tawxiid tawxiid wéetal yàlla ndax loolu nit ñi loolu mooy lu soxla loolu moom mooy dëgg ak ci bokkaale parce que loolu mooy suñu problème Sénégal amuñu bëri wuñu amuñu problème franc-maçonnerie dañu wax di dëgg góor jigéen bëri wu fi nañu wax di dëgg. problème majeur bu ñu am moom mooy bokkaale. Sénégal doo doo dox ci mbedd boo mën nga dox ci mbedd ba ñibbi doo dayee góor jigéen qu'on se dise la vérité. Ah, waaw lay góor jigéen matu ci zéro virgule cinq. dara. mais bokkaale kat yi nag bokkaale kat koo wax mu ne quatre-vingt-dix pour cent lañ wala laa yaakaar man di wéy sama yaakaar am na àllaaxar ah léegi yow nga bëgg a focus nga bëgg a focus ci loo xam ne nga bëgg a focus ci loo xam ne am na lu ko gën a grand am na lu ko am na problème bu ñu gën a am mais rek la problème boobu ba pare ngay doog a dem ci wax fee balaa nga wax ay laïcité ay franc-maçonnerie Sénégal mais loolu du suñu problème majeur dañu wax mm-hmm. dëgg nekkul suñu problème majeur déedéet yow naka ngay xeexee franc-maçonnerie mooy kuy jaamu seytaane mais yow nga fiy bàyyi ay sëriñu seytaane maa la ko wax de sëriñ bu naa munuma julli sëriñ bu naa sama sama sama maam moo sàkk asamaan ak suuf sëriñ bu naa sama bisu maam moo gën tabaski mais ñoo ngi ay seetaane nag foofu balaa ngay xeex seetaane bee di franc-maçon xeexal seetaane yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sa biir kër mooy dëgg seetaane bi nga xam ñu ngi sa dëkk kan moo gën a nekk seetaane koo xam ne nee na day teggil Baay Faal julli ñàkk woor ko kan moo ko gën a nekk seetaane nee na Baay Faal dëgg ñoo ko gënal wax mais ko ku gën a nekk seetaane ko gën a nekk seetaane koo xam ni nee na Baye Fall am na droit ba ñu julli ba ñu woor bu dee dugg àjjana kooku comme moo gën a nekk seetaane nee na jagle la jagle la ngeen dem ci seetaane franc-maçon seetaane la sataniste mais ay sataniste ñu ngi ci biir Sénégal waaw ka lépp yàlla la ka gëm ni lépp loo gis yàlla la xaj bi yàlla la yàlla yàlla bi bi yàlla la mbaam bi yàlla la nee na la iblis sax yàlla la firawna yéefar bi yàlla la kooku kan moo gën a nekk seetaane tijaani loolu lañ gëm waaw kaw la kan moo gën a nekk franc-maçon taalibe bi bàyyi amee xel kan moo gën a nekk franc-maçon kooku mais wake up yeewu leen quoi du yeewu de ba keroog ñu Ousmane oh, bu amee beneen wala ma bàyyi fa dem mu wala fekkee am na problème problème la de beneen bu ñu waroon a ñëwaat saxati am na beneen mbir waaw mais atey atey sama laaj hmm. bi sax da nga tontoogul oustaz moy wax ju melni lan moy atté ko xamné dafa weddi waxu yonentu yàlla muhammad alayhi salatu wassalam dañ koy tuubloo su bañé ci l'islam dañ koy ray bu dee l'islam lañuy àtte bu dee l'islam yi àtte am borom yo xamné sax sax wu sax tuubloo koku yeufal la koku yeufal la parce que dafa weddi benn ponk ci ponk l'islam mi shahadu anna muhammad rasulullah parce que shahadu anna muhammad rasulullah lu mu lambo moy tasdiquhu fi ma أخبره أخبره وطاعته فيما أمره mooy nga dëggal lu mu xibaare lépp lu ñu xibaare mu war nga dëggal ko kii dafa màbb loolu ba au contraire sax dëggalu ko waaye nee na la la ci ëpp du dëgg waaw comme la chaque ni yëfër la waaw parce que kii moom lu mu boolee kii dafa yàgg di daganalu yàlla araamal te daganalu yàlla araamal sax kéefër la yonent saa sa boo waxee ittaxasu euh, axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min dunillah min dunillah lan la ko ubay ibn Ka'b wax wala kenn Ali ibn Ali mu ne ko ñun jaamu wuñ leen dafa ñu leen ay yàlla mu ne hmm. xanaa nekkuñu di daganal lu yàlla araamal ngeen koy ngeen koy ngeen koy ngeen ngeen koy daganal hmm. ñu ne waaw mu ne xanaa di di araamal lu yàlla daganal ngeen koy araamal mu ne waaw mu ne loolu nag moom mooy xeetu di leen jaamu loolu mooy xeetu xam nga xaju ci yooyu la yag dëkk ñu dagana lu yalla araamal rek amna na xalé bu jigen bu daan futteeku fi dafa yaramu neen genn di di di di di wane ay awram di fecc di wax di n'importe quoi ñepp diko ngañ ŋàññi amal bu ñess mo genn dafa defaan xale boobu la xel muy sama xam naa ne lu muy def ne lu muy def baax na comme ki dafa yag nek iblis Ki dajjal musa nekk dajjal bu sa waaw yàlla ñu yàlla subhaanahu wa taala musal ci yàlla ñu yàlla subhaanahu wa taala musal ci nit yu mel nii oustaz ab boroom xam-xam wala ab nitu diine lu mel ni su amee nit ki su fekkoon ne tey lu mel nii am na ci dëkk yi nga xam ne ni lislaam mu ngi fay dox dëkk yi nga xam ne boroom xam-xam yi danañ di wax ak nit ñi ci diine bu dellu see yu mel nii yëngu-yëngu yu mel nii wala wax yu mel nii am fa wala sax ba ci mbir góor jigéen ñi borom xam-xam ndax dañuy toog rek jël i ñu indi leen ab feuille yu signé wala dañuy def déclaration wala dañuy génn taxaw wax maa ñu dem ci jàkka ji wax wala ñu jël rajo bee télé yi wax. lan mooy lu mel nan comme comme lu Ahmed Khalifa Niass wax wala. ak ñii di wax ci mbiru góor jigéen yi ñuy wax nii naan loi bi nii war nañ ko wateeg war nañ ko wateeg war nañ koo sàng tëral fii war nañ koo sàng bu weesoo ñi koy wax ak nekk ñooñu tegal naa leen mais léegi boroom xam-xam ci lu mel nii peuple bi yittewoo ko. xam ne li mm-hmm. ëpp ci peuple bi ñoom fii lañ mm-hmm. aw mm-hmm. te lii atteb lislaam ni ñi maanaam ama ama xamuñu ko ci wala réeré wuñu ko réeré nañu ko wala coow laa ngi génn léegi islam nii la atte balaa dara ñu leeral islam nii la atte góor jigéen góor jigéen ñaar la góor jigéen bu nekk góor jigéen daganal góor jigéenam kooku sikki saaka amul yéefar la ñaari góor jigéen ñoo am góor jigéen boo xam ne dafa nekk góor jigéen daganal góor jigéenam mm-hmm. ko génn dina lislaam ñaareel bi kii góor jigéen la mm-hmm. waaye daganalul góor jigéenam dafa mm-hmm. dugg ci góor jigéen c'est parce que noonu lañ ko yare mu màgg ci wala parce que intérêt moo ko dugal bëgg na tukki dem Europe wala bon moo ko ci dugal waaye xam na ni lii lu araam la te reconnaître na lu araam la ànd loolu mu ngi julli mu ngi woor ko islaam dafa ne def na bàkkaar bu rëy ci bàkkaar yi rëy waaye génnul diinal islaam mm-hmm. te bu deewee dañ koy jox àtte jullit mm-hmm. comme jullit bu daan naan sàngara ba dee comme jullit bi nga xam ne doon njaaloo ba dee waaye danaan julli danaan woor kooku àtte boobu lay am dañ koy suul dañ koy jullee mais quant à góor jigéen nga xam ni moom dafa daganal góor jigéenam daganal ko te daawul juli daawul woor daganal ko kooku moom yéefar la mais ñaareel bii ma tudd ki nga xam ni da koo def parce que intérêt la mais xam na ni dafa xaram Mm-hmm. mais ànd ak loolu muy jullit woor kooku kooku génnul diine lislaam def na bàkkaar bu mag te bu dee islaam lañ koy àttee dañ koy rey mm-hmm. rey bi nag nekkul dañ koy rey parce que yéefar la déedéet dañ koo rey parce que dafa def bàkkaar boo xam ne rey dafa tegu ci kawam te bàyyi ko fa mun na wàll ñeneen ñi dafa mel ni ku am jëkkër njaaloo jullit bu am jëkkër njaalo mm-hmm. ak julit bu am jabar njaaloo ci atel l'islam dañ koy ray hmm. mais est-ce que bu buñ koy rey day firi ni yeufal la moo tax ñu ray ko dedet manam jëf ju mu jëf la moo tax jëf joju atte moy ray wa ñu xamni ni ba gëna a ci bàkkaar yi hmm. du gor jigen bàkkaar ba gëna a ci bàkkaar yi mom moy bokkaale yalla hmm. bakkaaru jébbalu ci keneen ku dul mo hmm. gëna reey bakaru goor jigen bakaru ñak julli ñak wor ne bay fal nga mo gëna bon bakaru goor jigen hmm. bakaru diw la yaakar aduna ak alakhir gëm ko gëm ko fas ko sa xol mo gëna hmm. bon goor jigen bakaru gëm ni diw mo moo ci abi aljana yowal qiyam bakar bo mo koku mo gëna bon goor jigen bu fekke goor jigen mu gëmul lool lool ñu bay ci xel waaye góor jigéen atem ci l'islam moy dañ ko ray ndax bakar bu mag la warñu ko baye ci société bobu muy dundu ndax day jox virus bi ñeneen yi li na leer d'abord benen bi mom moy lu war xaw yeek ngo xaw yeek galal yi tak bejjit yi ñu jël jibar jibar kat mo gëna bon goor jigen jibar kat yi jibar kat yi nek ci lamb yi daf ay xarfa fuuf ak yoy ñoo ñoo gëna bon ak ñu ci gàmm yi oustaz gàmmkat yii nii ngay gis nii ak conférence yi ñoom ñëpp dañoo fees dell ki xaaw ki béjjén ki ndombo ki lépp la ñuy takk ñoo gën a bon góor jigéen ci jarangi la ñuy dem ñu leen defal jibar jibar jibar kéefër la ñooñu ñoo gën a bon li nga xam ne moom mooy góor jigéen islam nii la ko tëralee ku weddi suñu wax nag dabal nga indi rek preuve bu leer ci l'islam hmm. ñun islam àttee noonu la ñuy àttee comme góor jigéen dafa bokk ci bàkkaar yu war a xeex ci bàkkaar yu bon yi nga xamante ni euh, waruñu ko seetaan ci société waaye nag la ko gën a bon moom mooy bokkaale moom islaam bokk bakkaaru bokkaale la jiital ci bakkaaru ci bakkaaru góor jigéen bu fekkee góor jigéen bi daganalul góor jigéenam xam nañ dafa araam waaye ànd ak loolu muy julli muy wor léegi nag lu war ci boroom xam-xam wala kuy wuyoo lislaam mhm. mbir yii bu amee ñuy coowal hmm. góor jigéen lu mel noonu lu war ci yow mooy hmm. nga def sa xutba wala def sa conférence yor sa micro hmm. indi aaya yi nga xam ne ci la yàlla wax modub góor jigéen indi xadis yi nga xam ne ci salaa sallam wax modub góor jigéen nga jàngal ko nit ñi firil ko nit ñi wax musiba yu ci nekk wax danger yu ci nekk boroom xam-xamu lislaam wala ab sëriñ hmm. ci lislaam buñ ko waxee hmm. mooy koo xam ni day amal ab jotaay ubbi alquranul karim hmm. di tafsiral jullit ñi aaya yi ak waxu yàlla borom bi subhaanahu wa taala boroom xam-xamu lislaam suñ ko waxee mooy ki nga xam ne day tëral buxaari wala muslim Hmm. téere yi nga xam ne xadis yonente bi ak i jëfam mu nga fa mu koy firil nit ñi hmm. di leen ko jàngal borom xam-xamul islaam koy fekk laxdari wala hmm. risala wala iziya wala téere yi nga xam ne ñun ñu ne ci imam Malik ngir imam Malik lañu ñu mo khalim xam xalif général nga moo xam koo munta doon ci diina la ngay askanale ñu fekk la yooyu nga koy jàngale nga koy leral li <laughs> mo war borom xam-xamul islam li ku ko deful rek hmm. do borom xam-xamul islam ab kan nga ak foogal boo dul def li yo am bolo ñu la borom xam-xamul islam xam ne yow kan nga ab fookat nga mom moy deug te ñoy ñoy ñi nga xamanteni ñom la yalla wax ni bu ñu dekkee ak talibé yi talibé yi dañuy jog rek poñé ne rabbana haulaai adalluuna yàlla ñii ñoo ñu réeral yàlla mbugal leen ñaari yoon dañuy xeeb sax benn bi mais yàlla mbugal leen ñaar yoon ñoom ak taalibe yi leen toppoon ci bànneex yépp yàlla boole leen yóbbu leen safara comme yéen sëriñ si di nax nit ñi ci turu diine doo leen tafsir alquran doo leen xutba doo leen jàngale doo leen firi xadis yonente bi sallallahu alayhi wa doo leen jàngal nu ñuy sax fiq nu ñuy jullee nu ñuy wooree nu ñuy nattee asaka nu ñuy demee màkk dara doole ko si jàng di hmm. réeral nit ñi seen turu maam di leen diggee àllaaxira yàlla nee na boo leen faatoo hmm. taalibe yi ngeen doon nax ñoo leen di poñe xëcc poñe rabbana haulaay adalluuna yàlla ñi ñoo ñu réeral rabbana atim dixfay waxu yàlla du dañ de wallahi alazim yàlla mbugal leen ñaari yoon ñaari yoon te yàlla loolu lay def bëggal leen ñaari yoon tey nga foog ni tey sëriñ ña ëpp ci taalibe yi tey hmm. ñu ëpp ci taalibe yi laa lay wax de damal tarixa bu nekk ñu ëpp ci taalibe yi duñu julli Ousmane Sonko gis naa sa message la tontu waaw ñu ëpp ci taalibe yi duñu julli hmm. hmm. tarixa bu la neex nag demal ñu ëpp ci taalibe du duñu julli dëgg ëpp ci taalibe ñoom ñooy fecckat yi fecckat boo gis naa la man taalibi sëriñ diw laa naa la ko wax ëpp ci woykat yi koo ci gis am na jël bu mu takk taalibi sëriñ diw laa dëgg la de ñi ëpp ñi ëpp ci mbëri hmm. hmm. ay taalibi lañ dëgg la de gis taalibi sëriñ diw laa dem naa ziyaara sëriñ diw sëriñ diw moo ma ñaanal kon voilà yéen taalibi la mooy seen yéen sëriñ la mooy seen mission dëgg la oustaz yéen seen bi ngeen di woote ban njëriñ la ci yéen. dëgg la laaj bu am solo na. bu fekkee ni yéen ñii ñëpp. ñii hmm. ñëpp seen i taalibe lañ. mais hmm. njëriñ ngeen am ci diine l'islam. dëgg yàlla. comme da ngeen di échoué. parce que yéen quatre vingt cinq pour cent ci seen taalibe yi jubuñu ci hmm. réer lañ nekk. quatre vingt cinq pour cent seen taalibe yi ñooy feesal conseil waaw. 85 pour cent seen taalibe ay mbër lañ. waaw cinq pour cent seen taalibe yi ñooy feesal stade combat lamb yi ñoo koy feesal. 85 hmm. pour cent seen taalibe yi nekkul ñooy feesal jàkka yi duñu julli jàkka comme da ngeen a échec yéen sëriñ si comme ça veut dire leen jàngaloo leen nit ñi diine. boo leen mm-hmm. nit ñi boo leen jàngaloo nit ñi diine duñu àgg ci état bu dagaral góor jigéen ak ñàkk ko dagaral. ñoom ñoo koy njëkk a xamal seen bopp. بالضبط مي داغي ايشوي مي داي وانا سان اشك مي غن خامني اشك ديالكو فاطمه ما ما غيس فدال دوغ ما خمنا من ماغي استاذ فادي السلام عليكم من آه، ماغي من ماغي ديسال بو امي لاج بيجيم جي وا وا مون نغا دار ابري نغا نيوات ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله استاذ فادي نغا ندف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته